ginnaaw bi ma nuyoo ñi fi teew ñépp maa ngi nuyu directeur wu FIMF ak maa ngi nuyu directeur wu FIMF directeur wu DRS SFD di nuyu également directeur général wu FONAMIF ak directeur de la microfinance nuyu madame la représentante du directeur national de la BCAO monsieur Al Amin Lo maa ngi nuyu également représentant président APSFD le directeur général Jean-Jacques Diop di nuyu mbooleem président conseil d'administration ak dirigeant mutuelle yi te nga xam ne Omar Diop di gérant mutuelle éleveur u daara ak soxna mun a Ndaw di PCA bu Aprofes Teranga bu Kaolack wax nañ ci seen tur ñoom ñëpp ñu bari ràññee naa leen ci maa ngi di sant di leen gërëm ci déplacement bi ak teewaay bi di nuyu membre cabinet bi équipe bu ministère yi di nuyu presse bi di nuyu invité yi di nuyu vraiment mboolem ki fi teewu rek nuyu nañ la nuyu consultant Thiam bi nga xam ne yàgg na liggéey ministère bi aussi euh, di am mbégte bu baax nag ñuy dajewaat tey ci suba ndax euh, ay weer ci ginnaaw daje woon nañ pour lancer session de formation yi nga xam ne ministère bi jaarale ko ci FIMF mi ngi ko jagleel bi ñuy wax SFD de petite taille pour bokk ci lépp loo xam ne dina gën a dëgëral seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci seen euh, localité yi wax nañ ko sànq mutuelle de petite taille yi dafa yitteel lool njiitu réew mi keroog bi muy def audience su APSFD nga xam ne daanaka kuréel yu bari teewoon nañ fa moom ci wàllu boppam wax na ban taxawaay la yéene d'abord pour secteur microfinance de manière générale mais surtout pour li ñuy wax mutuelle isolée bañ na ko ba keroog fàttali nañ ko dafa ne bu leen kenn waxati isolé soppi leen tur xam naa tur bi nag dina jafe soppi ndax biñ koy wax ba léegi mënuñu fexe ba soppi ko soxna may mun a nee na petite lañ waaye pëtit ci rëy ci jëf ja waaye foog ñu màgg nag te màgg boobu ñuy wut li tax ñu koy wut ñaar bi ci jiitu mooy dañu gëm ne bëri na ci loo xam ne état bi da koy mbébét war ko mën a def surtout lu demee ci ni inclusion maanaam nit ñi di bokk di yëg lii xew mën nañ ko jaarale ci mutuelle mutuelle isolée parce que ay émanation population bi la ñi dëkk ci gox-goxaat yi ñooy daje am seen mutuelle di seet ni ñuy jóg ko daanoo donc ñu mel noonu bu ñu amee yéene. ak volonté boobu li war réew mi mooy état bi mooy mu taxaw seen wet kon li ñuy def dañ ko war a def mais léegi nag yéene boobu ñu am pour mu mat day des seen taxawaay yéen ci seen bopp parce que ku ñuy jàppale ñeen ñi depuis 2014 ñeen ñi depuis 2016 ñeen ñi avant yaakaar naa jàppale baa ngi bëgg yàgg ku ñu jàppale diir boobu war nga mën a am benn taxawaay moo tax day bokk nag. ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokkandoon kenn ku nekk di def li mu mën aussi ñu xool mutuelle yi seen taxawaay ndax yi nga xam ne FIMF dina leen ko jox moo xam ci wàllu matériel informatique la imprimante yi système yi sig beeg yooyu te ngeen wax dugguleet lii tax muy gën a yéex di dem ci yeneen yi mooy aussi obligation yi nga xam ne bu leen joxee système bi ba pare yéen dafa am lu ngeen war a comp di ko joxe du mat du ngeen ko def te loolu c'est un problème ndax bu ñu la joxee jumtuwaay bi ngay liggéeyee renforcer sa capacité jox la logiciel boo xam ne lépp da ko war a jël mais loolu lépp da koy tënk génnee ko ci sa capital génnee ko si say charge d'exploitation kon da ko war a génnee ci nit ñi nga xam ne ñooy ñëw ci yow di jëfandikoo mutuel bi boo ko ci génneewul ba pare nga teg ci doo fay. problème day daal di bëgg am kon suñu bëggee liggéey bi ñuy àndandoor di def gën a ñoŋ te bu gënee ñoŋ yéen lay njëkk gën a ñoŋal parce que yeneen difficulté yi ngeen di am yépp lu bari da leen di teggeeku ndax état bi day gën a mën di dimbale ndax bu fekkee ne ñi ñu njëkk dimbale taxawaay bi ñu war a def yépp matewul pour nga mën a dimbale ñeneen day gën a jafe parce que toujours da ngay nekk ci ñooñu di pousse di pousse di pousse te comme nag yéen ne vous êtes performant yéen a ko wax man waxuma ko soxna may mu ne moo ne on est performant présidente il faut payer voilà su loolu amee dinañ juboo parce que yéene bi ñu am mooy bu ñu paree def les assises de la microfinance nag foog ñun ci suñu wàll bopp ñi ngi fexe nu Fonamif taxawee pour mën leen gën a dimbali parce que gis nañ ne bu ñu leen dimbalee li ñu bëgg ci inclusion day am kon faw ñu fekk si leen ci gën a oyafal jumtuwaay yi nga xam ne buñ leen ko joxee dinañu atteindre objectif yi mais ndimbal na ca fekk loxol borom te bu ngeen gisee seen jëwriñ parce que maay seen jëwriñ te fii ñu toog ñu ni nen kon ñu ni nen war nañ mën a waxante après bu ñu bu ñu jàkkaarloo ak ñeneen ñu lëkkaloo rek taxaw jàkkaarloo waaye la si suñu biir nañ ko waxan waxtaane bu ñu tasee suñu biir comme nag yéen yéen a ma wan ne dañ lay jàppale pour nga liggéey faw ma mën leen a wax li ma bëgg ngeen jàppalee ma pour liggéey bi gën a mën a dox moo tax bu ngeen delloo te formation yi nga xam ne dañ leen ko jagle pour mu gën a yokk seen xam-xam ba ngeen gën a mën a euh, taxawal li ngeen di liggéey ngeen mën ko partager d'abord ak ñi nga xam ne jotu ñoo ñëw ensuite ngeen mën ko appliquer mais surtout ñu mën a taxaw ci anam yoo xam ne dina gën a mën a tax ñuy gën a mën a dimbale li ëpp ci yéen parce que mutuelle yi quand même takku nañu Sénégal donte doyul takku nañu kon war nañ leen gën a mën a taxawal li mu concentré ci population tabarfakal la sakkan na kon luñ ci deful rek daa fekk priorité yi day bëri mais war nañ ci mën a def lu ne ndax li ñuy wax la Sénégal réel foofu la nekk di yëngatu kon maa ngi am mbégte lool ci suñu jotaayu tay bi di ñaan ñi jóge ci région ñu dellu ci jàmm ak salaam di wax ne am nañu aussi yéene defaat le tour ni ñu gisee ne vraiment accompagnement bi ñu defoon ci wàllu Covid bi am na njeexital war nañu mën a defaat beneen programme bu mel noonu boo xam ne dina gën a mën a également bokk Euh, ci liy renforcer taxawaay yi notamment euh, ci secteur refinancement bi ñu gën ko yokk gën ko yaatal parce que en définitive loolu moo ci ëpp solo ngeen am ressource yoo xam ne dina leen permettre ngeen gën a mën a nekk en activité kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di féliciter encore une fois la directeur du film et l'ensemble de son équipe je vous